J'espère que vous allez faire la même chose. Vous allez bloquer le chrono quand ils feront ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Voilà. Ça, c'est votre problème si vous ne m'écoutez pas. Un président de l'Assemblée nationale qui dit je ne vous écoute même pas. Vous êtes indigne d'être le président de l'Assemblée nationale. Indigne d'être le président de l'Assemblée nationale. Vous êtes en pleine divagation. C'est extrêmement grave ce ko vous faites. Vous êtes une honte pour l'Assemblée nationale. Voilà. Monsieur le ministre, dama bëggoon ñu waxtaan tuuti ci agriculture am na ñoo xam ni kenn du leen topp parce que ils son dans la divagation te boo nekkee dans la divagation ku la topp xaw mel ni yow avant may ñëw ci mbay mi je vais répondre à certains certains d'entre eux génn nañu taxaw fii wax ne dañoo gis ay députés yoo xam ne dañoo nekkoon ci terrain bi di taal ay oto moi je lui rappelle qu'en mars 2021 il a recruté des nervis yoo xam ne ñoo doon dóor xale yi di dóor ay nit ci mbedd mi je lui aussi ko niveau de la ville de Dakar dañ ko fay intégralement chantier boo xam ne daf ko doon réaliser lekk na xaalis bi ba léegi mënul fexe ba chantier bi disponible je lui rappelle ça beneen affaire am na ku fi taxaw traité waa Pastef de voyou mais les plus grands voyous le plus grand voyou mu ngi fii au palais de la République le deuxième plus grand voyou c'est lui le président de l'Assemblée nationale les plus grands voyous de ce pays c'est vous les députés malheureusement pour vous vous êtes la honte partout dans le monde, on ne parle que du Sénégal de façon négative. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. mooy ñi les xam moi, dañu ne dañuy réduire l'opposition à sa plus, plus simple expression. mooy ñi moi, xam savons dañoo jël xaalisu réew mi dénk leen ko en pleine Covid ñu sàcc alalu réew mi jël ko di ko recruter ay nervis ñuy daw sur les populations civiles. Ce son là les voyous que nous avons fii Assemblée nationale la vous êtes courtois on est courtois. Vous ne l'êtes pas, nous ne pas. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre de l'Agriculture, dama bëggoon xam exactement sur le plan de, de l'agriculture, qu'est-ce que vous allez faire pour que l'agriculture soit une faire de lance man duma daw ñi doon daw xam nañ leen ñi doon daw di woote téléphone xam nañ leen non barawul non kii kii moo yées ñëpp bu leen ko topp baa leen ko du ko bloqué mais je m'en fous éperdument li ma wax dinaa ko wax mani mani mani mani gatsa gatsa bi gatsa gatsa bi ñu ngi leen di xaar fu ngeen ñu woo dinañ leen fa wuyu ngeen di jaay wuyu ñoo leen gën a wuyu bu ngeen bëggee jàmm ñu jox leen ko bu ngeen bëggul jàmm dinañ leen toroxal bëccëgu ndare kàmb ay ray nit ngeen ay sàcc ngeen La parole est à notre collègue euh, El Hadj Oumar Youm